الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وآله نيجي البداية والنهاية في سوار آدم عليه السلام وقوله وقال تعالى كوانا جملة فعز الله ما ترقصنا لنا الشيطان شيطاننا ورث الجنة أي يعني الجنة ورث الجنة ده شيطان ترقص لنا آدم وحواء بجن لنا الجنة فأخرجوا ما مجن لنا مما كانت لن يكن في اجموم أي من النعيم جقوال ونظر لنا تخ وسرور يقن بكت لا داري تعب جمجي كرك چوانا والكدي أك متت ونكر نخر جن لن چكرك چوانا متت نكت مير نقر وذلك جن جمن جن بما وصوصا سببو لم جخ جخل لهما نيال لن يمنار wa zayyanu mu taaral ko fi sudurihim seen dënn daf leen a jax-jaxal daal di taaral seen dënn lekk garab googu ba léegi mbon gu nit dugg rek seytaane ko taaral ci ay bëtam de kama qaala ni mu waxee taala yàlla mu koy fos wasa mu jaxal la mu feeñal ñeen la ñoom ñaar maa wuree la nëbb nañ ko anu maa si ñoom ñaar min sawaati maa seen ayib de seytaane jax-jaxal leen pour feeñal leen seen ayib yi nëbbu waqaala mu ne maa nahaakuma ayawu leen rabbukuma seen borom anaa si shajarati ci bile garab <clears throat> illaa an takuna lu may ngeen nekk malaka ne di ñaari malaka aw takuna wala ngeen nekk minal xaalidiina ci way béli yàlla ayawu leen garab gi lu man bañ ngeen nekk ay malaka wala ngeen sax ci aljana du ngeen fa génn <clears throat> moo tax seytaane waxut dëgg waaye yàq yaqulu day wax ne maanaa kuma aayewu leen an akilaazi shajarati ci bira lekk bira garab illaa an takuna lu may ngeen bañ a nekk rek malakayni di ñaari malaaka aw takuna wala ngeen nekk min xaalidina ci way béeri maanaam sax ci du ngeen ci génn lu ma ci lu mu na mu ci wax jooju wala akaltuma bu ngeen lekkoon min haa ci garab googu la surtout da ngeen mujj kazaalika comme noonu de nekk malaaka du ngeen fi jugee bu mukk kon lekk leen وقاسم ما مغنل لين اي المسلم على فغن لو ما نين لين من على ذلك تشلول اني انا كمان لمن الناس ان من بو اي بوكس وي لاي بير لكم ما نين لين نيار دي مغنل لين من دم وين لاي بيرك كون لك لين تي غرب كما قالا كون وفلات اخراج بن الله فوت وتم جغل الي جمت ادم الشيطان الشيطان قالا منك يا ادم اي يا ادم هل ادلك من اخدم لون على شجره الخلد غربك بيل mulkin ak nguur goo xam ne laa yablaa du rappale ay lum na mu ci wax jooju mooy alaa dullu ko ndax du ma la wan ala sijarati ci garab alati ba nga xam ne isa akalta boo lekkee minaa ci garab googu xasara am na laka ñeel al xul du beel am fii ma anta ci li nga xamee ne yow fii yaa ngi ci mën a naay mi ci xewal de mu ne ko ndax du ma la wan garab goo xam ne boo ci lekkee rek doo jug ci xewal gi nga nekk wasamrata ak li nga continuer fi mulkin ci ngóor wasamrata da nga continuer fi mulkin ci nguur goo xam ne laa yabiidu du alku maanaam du jeex wala yan xadiita du fi du jeex boo si lekkee da sax ci nguur goo xam ne du alku du jeex wahaza lii mu wax moom iblis min taxrir mu bokk ci xor wa taswir ak taaral wala xibaar ak xibaar bi xilaafil waaqi ci wuteeg li xam de ay wore la rek ak naxe yoo xam ne iblis def na ko aadama ba léegi moom lay def njaboot ak aadama gi والمقصود لن جبلو أن قولو أنا وخم شجرة الخلد الجناي بيل ما التي غرب جاي خم إذا أكلت بوله كي من أجمعهم خلت تدنشي دعي بيل شال جنو دوف جي وقد تكون منامنا كي مم الشجرة دي غرب التي جاي خم قالوا أنا الإمام أحمد حدثنا وقت أن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا وقت أن لن شعبة أنا أبي دهاك جريت أبو دهاك من سمعت دعنا أبا هريرة أبو هريرة يقول ما وحنان قال وحنان rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ne na fil jannati naka nekk na ci aljana sajaratan garab goo xam ne yasiru dana dox arraakib aji war fi zilliha ci këram mi'ata amin téeméeri at yoo xam ne laa yaqtuha du ko dagg yonent bi nee na aljana am na garab goo xam ne nit mën na cee mën naa dox ci kër gi téeméeri at du jeex sajaratul xuldi kooku mooy sajaratul xuldi de mooy garabu benn mën naam am garab googu di Adama lekkoon de wa kazaalika nii rawaahu la ko nettali aydan ba tey moom imaam Ahmad an Gundur an Gundar jëlee ko si Gundar ak Xajjaaj an Shu'ba mu jëlee ko Shu'ba wa rawaahu nettali na ko Abu Daawud at-Tayaalisiyu fi musnadi ci musnadam an Shu'ba jëlee ko si Shu'ba aydan ba tey qaala Gundur wala boog Gundar nee na qultu wax naa li Shu'ba ñeel Shu'ba ne hiya moom sajaratul xuldi mooy aljanaay mu ne laysa nekkul fiihaa ci moom hiya Shu'ba ne ko hadis bi amul hiya def na sajaratal xuldi rek la wax amul xiya tafarada wéetoo na bii ci nettali gi al imam ahmad imam ahmad de ma xawla waxam fadallaa ma mu tegtal leen bi xulurin ci ay naxay falama zaaqa bañ musa ya shajarata garab ga badat fañ la huma ñeel la ñoom ñaar sawaatuma seeni ayib wa tafiqaa ñu commencé yaxsifaani di taqal alima seen kaw mi waraqil jannati ci xobi aljana al araaf kama qaala comme nu wax moom yàlla fi taala fi taa ci sortu taa نفع كلاني لك منها تقربك فبلد مفعل لو ما لن يمنع سواتهما سيني أيب وتفقاني كما يخصفاني دي تقل علي ما سن كومي ورق الجنة تشقبع الجنة وكان نكون حواء وحواء أكرد لك من سجرة تشقرب قبل آدم نجك آدم حواء مونجك لك مونجك لك تشقرب وهي التمام حواء التي مونجك قمنا حددو نياخنا آدم ala akliha ci lekk hawa moo lekk wax adama na ko lekkal ba lekk moo tax jigéen ñu bari du seen jëkkër yi dugg rek ñoo leen ci dugal wallahu alam yàlla rek xam yi ci wax jooju jox lañuy la ñuy xen alhadisu laji hadis bi nga xam ne rawaaw nett na ko buxaari buxaari mu ne xadasana nett nañu bisr bun muhammad xadasana nett nañu abdullahi an baara xibaar nañu maamar an hammam jëlee ci hammam bur mu nabbi an abi hurayrata an nabi mu jële si yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne lawlaa banu israil su nekkutoon ak banu israil lam yaxnas du nëb allah mu yàpp surtout banu israil yàpp du nëb ndax ñoom la yàlla wàccel mën nag salwaa ñuy denc waaw picc ma yàlla nëbal ko yàq ko fara yàpp commencé boo ko dencee rek mu yàq yàlla daf leen lekk leen bu leen denc ñu denc mu yàq ñoo tax yàpp yi nëb de wala laa xawaa bu dutoon xawaa lam taxun du war mukk unsaa jigéen zawjaa jëkkëram bu dutoon xawaa jigéen du war jëkkëram xawaa moo njëkk war aadama fexe ba mu lekk ca garab ga <clears throat> loolu jikko jooju moo rayaat doomam yëpp moo tax jigéen ju war jëkkëram rek waaw daf ko jële ci maamam rek mi xawaa rek ci la jikko jooju aneen xudda saas si di dafay wàll rek <clears throat> jële ñoom nag war ñi waree mën naa wuteeg ni xawaa waaye teewul ci sànni foofu rek de bul doon xawaa jigéen du war jëkkëram mukk tafarada weetoon na bii ci moom minasa ba ji ci biir anam kooku Buxaari andi na ko wax ra jaaw génn nañ xadis boobu ñoom ñaar ñëpp Buxaari muslim fi sayaani si Buxaari muslim min xadis Abdurazaq jëlee ko ci xadis Abdurazaq an Maamar mu jëlee ko ci Amar Maamar an Hammaam an Abi Hurayrata war a waaw nett na xadis boobu ba tey Ahmad ak muslim an Haaruna bun Maaruf jëlee ko ci Haaruna bun Maaruf an ibnu Wahbin an Amrin an abi yunus an abi hurayra jëlee ko ci abu hurayra kon xadis boobu am na ay riwaaya yu wute yu wane hawa jigéen du war jëkkëram wa fi kitaabi tawraat nekk na ci téereb tawraat alati bi nga xam ne bayna aydi ahli bayna aydi mu ngi ci loxo ahlu kitaabi di yahudi ñu ne anna lazi nekk ki nga xam ne dalla tegtal na hawa hawa ala akali ci lekk mina ci garab gi yé moom alxayatu mooy jaan wa ahlu kitaab ñoom dañ ne jaan ji moo wax waa ko lekkal ci garab gi wa kaana nekkoon moom jaan min ahsani ashkaal du yore melo wi gën a rafet wa a'zamiha ak melo wi gën a màgg rafet lool moom jaan faakalat ahwa daal di faakalat mu daal lekk ci garab ga hawa wa hawa xan qawliha ngir wax jaan jëre wa atamat mu daal di leyal aadama aadama alayhi lekk moo salaamu jàmm mu lay si nekkut fiyaa ci téere boobu di ahlul kitaab bañ yore muy tawraat zikrun tuddul iblis ñeen fay na zaalika ak jamono jooju bañ lekkee in fataat ci leen ubbeeku ayunu maa seen bët ya waale maa ñu xam annu maa ne ñoom ñaar xur yaa naa ne ñaari way rafle lañ foo sara ñu daal di xegg min war a xittiin ci xobi gëng waa mi laa ñu jëf ñu liggéey ma azira ay tubay wa fiyaa nekk na ci tawraat annu maa ne ñoom ñaar kaanaa nekkoon na ñoom ñaar xur yaa ne di ñaari way rafle bañ lekkee ci garab ga rek foofu moom waxu na iblis moo tegtal xawaa garab ga waa def na jaan jeeg ko tegtal jaan nag ku rafet la woon waaye yàlla da ko mujj soppi rek mu yere mbind mu bon mu ñaaw mi o ogasa nak ni xaalal wam wax bu bun mu nabbi moom it loolu la wax ne kaana nekk na libaasu ma seen yére nuuran di leer ala farji ci kaw kanamu aadama wa farja kanamu xawa bu njëkk seen yére leer la woon waaye bañ lekkee rek ci lañ rafle bañ lekkee ci garab ga ci la yére naaw wa hada alladi li nga xam ne fi hada tawraat fi hada tawrat mu ngi ci biir tawrat alati bi nga xam ne bi ay di mu ngi ci loxo yahudi xalatun jumte la minum ci ñoom wa taxrifun ak sensé wa xatawun ak jum fi taarib bi ci traduire gi ñuy traduire traduire seeni wax ci arab bañ loon traduire tawraat ci arab dañ cee juum ndax fene naqalal kalaami naka toxal wax min luxatin jëlee ko ci langue ilaa luxatin jëm ci beneen langue laa yaakaaru du xaw te yasaru du yomb li kulli ahadin kenn ku nekk wax ji nga jëlee ko ci langue ba de andi ko ci beneen langue yombut wala si ma rawante na nag man ci koo xam ne laa yaarifu xamut kalaama arabi waxu arab jaydan bu baax muy yahudi buñ taraajire tawraat bind ko ci arab rek mën nañ cee jum ndax xamuñ arab bu baax wala yooyu tuppeeguñ am man xam-xam bi faami kitaab yi ci dégg dégg nga euh, téere boobu ñoom sax dégguñ seen téere boobu bu baax ay den ba tey tere boo déggul nag di ko toxal ci langue boo déggul mën nga see jum de fali hazaali moo tax waxaa tàbbi na fi taaribim ci arabal gañu arabal tawraat laa ñeel tawraat xatawun jumte kasirun lu bëri lafzan ci baat woo maana nag maana loolu waral tawraat giñ bind ci arab xam na njumte yu bëri rek laa wax de moo tax juru jàpp waxat dala tegtal na alquran azim alquran ju tedd yi ala anu ñoom ñaar kaana nekkoon alayhi ma seen kaw libaasu yére de dégg nga alquran war na ne nañu amoon nañu yére waaw ahlu kitaab bi yow di waxee ci tawraat dafa mel ni ñoom gisuñu woon seen rafle gi waaye dañoo rafle woon loolu dëgg fi xawli ngir wax yàlla jum naan yantu dana simmi anuma ñoom ñaar libaasu ma seen yére li yére ma pour mu won sawaati ma seen ayib kon loolu war na ne amoon nañ yére faasa wax ji alquran wax laa yuraddu duñ ko delloo li xëyri ñeel leneen meneen kalaam ci wax de kon waxi yahudi lu tax ñu dàq alquran alquran a gën a dëgg ولو تعالى يعلم كما يعلم مودنا خم يبرق لها غري وقال وانا ابن ابي حاتم نحن حدثنا وقت على علي بن حسين بن اشكاب حدثنا وقت على علي بن عاصم عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن حسن عن ابي بن كعب قال وانا قال وانا رسول الله انت صلى الله عليه وسلم الله انك يلا خلق ابن ادم ادم رجل مي غور توارن كنجول ادم نجول كثير الشعر راسي كبري كرو وابو kaanoo def men moom naxlatun gën a bu tàndar mën a saxuqun bu gudd moom aadama vraiment taq ba mose a sijarata garab ga saqataroon naanu ci moom libaaso woo yéreem fawolu ma ba daala njëkk feeñ minu si yéreem awratoo ma di awraam ba mu garab ga rek yére yi wadd awraam feeñ vraiment nazara ba mu xoolee ila awrat yi jëm ci awraam jaala commencé na sa di daw fil janati ci aljana faaxal mu daal di jàpp chaaro karawam sijaratun benn garab bu ko defee karaw gi lonk ci benn garab fanaasa mu xëcc garab googu karaw ga maanaam mu xëcc ba sonn rek garab gi lonk rek fanaadaahu mu woo ko rahmaanu yàlla xasa noonu ma jëla ta màgg na garab ga lonkee nag ci la ko yàlla xoo <laughs> ne ko yaa Adamu tafiru ndax da ngay daw min nii ci man vraiment sama ba mu déggee wax yàlla xaala ci ne yaa rabbi ay yow suñu borom laa ولكن وانا استحيان غير روس رك دما روس رك كلمة رف وقال وانا الثوري انا بي انا ابن ابي ليلى جلس ابن ابي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه اتفقاكم حسنا سن يخصفان لتقل عليه ما كو من ورق جنة قبال الجنة اعرف <coughs> قال من ورق التين ويقب قن لن انتقل سن كو وهذا لي اسناد سند لصحيح بوير اليه جمتموم lii moom wér na ne Ibn Abbas moo ko wax wa kaana dafa mel ni loolu nag maa xuusu luñ jëlee la min ahli kitaab yi ci ahli kitaab wa wa zaahiru ayati li feeñ ci aaya bi yaqtadi day waral amalu gën a matale min zalika ci loolu mu ne wér na ne li Ibn Abbas moo ko wax gaa waaye daa mel ni ci ahli kitaab yi la ko jëlee daal Quraan lim noonu wax daal mooy ñu ngi taqal seen kaw rek ay xob xobi xobi xobi aljana yi lañ jël di fàqri jël rek nekkul xobi gën kese. قبل دني لاني فاق تيتقال سنكو دوخو بي غن كسه وايو بتقدير تسليمي بو نتر اك موتي مي فلا يدور دوار دي ميم سو فكاي لولو لو حملا قبي غن لا نتقال سنكو لولي دولور تولي من نانيك والله تعالى عالم يعلم كم مو خم وروانة لنا الحافظ ابن عساكر من طريق محمد بن إسحاق جلس يون محمد بن إسحاق أناس بن زكوان أناس البصري أنا أبي بن كعب قال وانا نه xaaral ma ne rasulullah abaakum naka seen baay aadama aadama kan nax la ci dafa mel ni garab tàndarma asawuq baa ji gudd si tiina ziraan juróom benn xasabu la moom aadama de juróom benn xasabu juróom benn wax si tiina ziraan benn fukki xasabu la moom guddoon na lool de kasira shaari ku bëri woon karaw la mu waaral awra ci kuñ sutural awraam la kon yii yëpp dañu wane ne seen awra dañ koo nëbboon falama asaabahum jotee alxatiyaata bakkaar fi dina di ci aljana badat ci loo ñeen ko sawatu ayibam muy awraam fa xaraja mu daal di génn mee jenati ci aljana di daw maanaam fa laqiitu mu dajeeg moom sijaratun garab jàpp bopp ba faaxasat mu jàpp bi naasiyati ci njubu bopp ba fanaa daaw mu hoo rab boo boromam ne ko afiraaran न धमे दौ मिनीचमन यादम यादम खारमे बल्ली बिने kahayaan damarus min ka ciyaw wallahi ma gin ci ya rabbi sama borom min ma jitu ci rama dike bi ci mom dama ci rus rek de damara ma gogu ku mel ni rek man nga mucc su mooy yàlla daal du lay day tuub rek jégalu du lay du rafetal mooyam gi du dara day xam ne moo bon rek mooy ne yàlla daal di tuub rek daal di xeres nag am kerta si waramam fas yéen ne dootu ko defati mukk ci coobare bu xam ku ko def daal lu beri yi bëri bëri yalla jégal ko dila delu na ci bakkaar bobu juróom-ñaar fukki yoon ci bis bi ndem mu ngi tuub di jegalu te lay pas-pasam mooy du ko defaat yalla dana ko jegal ak même bu ci delo wax ma ne ko xamni ni ba muy tuub lam bëgg moy delu wat ko ko wax ma ko tuubut su ma mu netlo ko min tariq sa'id bun Abi Aruba ci yoonu sa'id bun Abu Aruba netlo an hadith bi an qatadatu an hasan Xasan an uti bun Damra an ubay bun kabu. ani nabi ji rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nax yi comme nii rek daa wax de waxaasa nettali bii nag asawu moo gën a wér bu ñaareel bi moo gën a wér bu njëkk ba fay na xasan naka xasan la mu jéeg jotut dégg nga ubayyan te nettali bu njëkk gi xasan bun basri bun basri xasanul basri moo ko jëlee ci ubay bun kaab waaye nettali bi moom waaw moo tey bun waaw damrat moo ko jëlee ci kaab kon booboo gën a wér ndax xasan fekkante wut ak ubay su ma awradoo rasal na ko aydan ba tey min tariqi xaysama ci yoonu xaysama bun suleyman alatra budu siyi an mahamad bun abdul wahab dégg nga abi xirsafa al asqalaani an adama bun abi iyas ko ci adama bun abi iyas an cheyban ko ci an qatadatu an anas jëlee ko ci anas marfoon mi hadis bu njëkkati jëlee ko ci yonent bi naax yi ñëpp daal di wax ne aadama dafa gudd juróom benn fukki xasabu la ku bëri karaw la awraam nëbbu ba mu defee bàkkaar bi ci di daw rek garab ga lonku ci njubbu ga yalla hokku ne ko nak may daw yow ya, aadama ya mu ne ko daw mo la suma borom dama rus rek ci lama def ñom ñep netal nañu hadith bobu <laughs> mu naa daaw maa moo xooleen rabbu ma sen borom ne moom ak hawa ne alam ana kuma ndax ayum wulen antil kuma ci bobu le garab wa qul ma wax la kuma ñeen leen yéen ñaar nee na naka seytaane aduun non la mu biin bi leer ngone lakuma ñeen ñaar de qala ñu ne rabbuna yow suñu borom zalam naa tooñ ne anfusana suñu bopp way lam taxfir lanaa boo ñu jégalut wa tarxam naa nga yërëm ñu lanakunanna wallaahi dinañu nekk minal xaasiriin ci way perte yi de ñoom loolu rek lañ wax waaw daal di nangu seen bàkkaar tuub layuñ teggin comme iblis wa hada li i'tiraafun ak nangu la waru joon ak dellu ila jëm ci tuub rek laa wax dellu ci yàlla de wa tazallulun ak mokk mokklu wa xudun ak toroxlu wa istikaanatun ak miskin miskin lu waftiqaarun ak xaajoo ilay jëm ci yàlla taala kawenam fi saati raahina ci jamono ju jafe jooju mooy jamono ji nga xamee ne pay bi tëkku na leen rek laa wax ne ñoom dañoo dellu ci yàlla rek daal di tuub waaye jëmuñ faa woote dara wooteeg iblis waata si rumboon mi mooy dellu ci yàlla maa saraaro yaa fi ahadin ci kenn min zuriyati si njaboot ak adama illaa kaana lu may nekk na aqibatu mu jëmee xëyrin jëm ci yiw fi duniyaaw ci àddinaam wa oxraa tooñ daal jéggudu kum nekk ci yow rek xamal ne yow nan nga am jàmm ci àddina alaxira <clears throat> waaye tooñ ji lay ak yëg sa bopp xal ku rek de jaam fu mu mën a toll war naa toroxal boppam ci kanam yàlla nit mën naa mbër mbërlu ci kanam ku ne waaye ba mu des kanam yàlla de foofu moom ñun ñëpp jaami lottu yu xeebu rek lañ fa doon amul kenn na ku des xaala wax ne bitoo wàcc leen bandukum ñenn ñi adu noonu la li bandi ñeen ñenn ñi wala kum ñeen la leen fi adu suuf mustaqarun sax waaye wa wa dali xitaabun waxante la maanaam wax la li aadama ñeel aadama wa hawa ak hawa wa iblis aadama ak hawa ak iblis ak jaan ja ñoom la yàlla wax wàcc leen moo tax mu ne wax nañ ne wala xayatu ak jaan gi maawum ànd naag ñoom umiroo digal nañ leen an yaxbitoo ñu wàcc mën a janati ci aljana kaw nin ci jamono dañuy nekk mu taxa dina di way noono mu taxaari bi ne di way geerante nañ wàcc di geerante seen biir ku nekk noono sa waqad yustasalu danañ seedaloo li zikri xayatin ngi tudd tudd jaan maa wu maan ak ñoom ñaar bi ma sabata ci la sax na fi hadis ci hadis an rasulullahi mu jige si yonent bi sallallahu wax na ci hadis bi wane jaan ji ñoom moom it ci wàccee bi la bokk ci noonoo gi la bokk andoon na yonent bi amara digal na bi xallil xayaati rey jaan yi yonent dafa digle buñ gisee jaan rek nañ ko rey wa qaala mu ne maa saalam naa hunna xamuñu ñoom jàmm mun sa xaaram naa hunna dipp bañ geeranteeg ñoom dipp ba guerre doxee suñu digganteeg jaan yi ba léegi amuñ jàmm mooy jàmmoowuñ ba léegi kon guerre dox suñu teg jaan foo gis jaan rayal wa xaw la waxam fi sóorti taa sóorti taa ba des nag jaan ak Medina dégg nga Makka foofu boo fa gisee jaan na nga diisoo rek ñetti yoon man ndax man naa am jinne ji xaji si Makka rek laa war muy ziyaare wa xaw la wax yàlla fi sóorti taa sóorti taa xala woon ibita wàcc leen min ha ci aljana jamian mi mu ngeen boole baadukum ñeen ñax du noonu li huwa moom imrun amru amrun digle la li aadama ñeel aadama wa iblis ak iblis wa ma tanasara ak la nga xam ne génne na minu maas ñoom ñaar lu jugee ci aadama ak iblis yàpp yàlla leen digal pour ñu wàcc adaaw ni noonoo nag adaawatan noonoo mustamiratan bu continuer wastat baa mu daal di toppaloo moom yàlla xawaa wa xawaa aadama aadama wala xayatu mu toppaloo jaan nga iblisa iblisa xawaa <coughs> nag daal di topp aadama iblis ak jaan ja ànd xawaa ak aadama ànd su ابليس جان دي نوري خريط مورا جيني دال بوي سوبيكو رك نيار جان لينك نيك ناخ نوي خريط هوا نك اك ادم اند رك لا واخ دي وقيل وانا هو الامر ديغل لهم أمم نيان لين بيسي خري تسنيه سي تگينو نيار كما في قولي كم سي يالا تعالى كان امنو ني لين اي بي تا لي نيار مبولم ييب لا سي نامو فك وا داف واخ اك نيار رك فك مبول لاي واخ عرب داني ديف لولو <laughs> ملني كوي نيار فك مبول لاي واخ كون اي بي تا غوغو ني ني دو ادم اك ابليس رك seen i njaboot waaye xawaa ak jaan ji ci lañ bokk kama fi qawli taala comme ne yàlla waxee wa daawuda daawuda wa suleymaan ak suleymaan is yax yaxkumaane ba ñuy àtte fi laxas ca tool ba is na fa fashat ba mu ruuree mooy gàtt yi dugg fii fii ci tool ba xana mun xaw mi gàttaw nit ña wa ku naa nekkoon nañ saay den di way seet li hukmi ñee seen atte ba nga xamee ne waaw am na ay gàtt yu dugg ci torob jàmbur daal di ko lekk ñu ñëw ci aadama ñëw ci daawuda ak suleymaan mu leen ñu leen xàtte nga xam ne atte boobu atte ba ci Suleymaan atte woon moo di bi moo di bi gën a jaadu foofu yàlla daf ne wakku naa li hukk mi wax ne seen atte mel ni mbooloo mooy atte fekk ñaar ak ñu kon léeg-léeg yàlla <laughs> danay wax ak ñaar dégg nga danay wax ak mbooloo jox leen demiru ñaar loolu baraaxa dana ko jàngale wa saxiwul wér anna hazaana lii la maakaana ba mu nekk alxaakim attekat bi laa yaxkumu du atte ilaa benn isnin lu mooy si diggante ñaar mu dayin aji kalaame wa mu daan ale ak kuñ kalaame ak attekat bi foofu day mel ni mbooloo fa nekk xaal moo tax yàlla ne wakku naa nekkoon nañ shahidin di way seet la wakku moom ñeel seen waaw moo taxi surtout taa noonu la demee rek de <clears throat> mbooloo la ci namu rek ndax adama ak iblis ak lu juddoo ci ñoom boo xoolee <clears throat> ñoom ñaar lañ waaye <clears throat> mbooloo lañ kon bu ko joxee siixa ñaari tëgginu ñaari dañuy xam ne mbooloo la ci namu loolu arab daganal na ko waa ma takrir waaye baamu gim baamu wàcc ga في توري بقرة سار بقرة في قولي تهم جمنان وقلنا وانا يبتو واتلن بعضكم ينني عدون ولا لي بعض ينني ولاكم ينني في هذا السوف مستقر سخواء ومتعون القول الهين باب جمنو فتلقى مدال جل عرم عرم من ربي تبرم كلمات نعبات فتابوا من هذا نقول توب عليكم إنه نكون هو مؤتواب مؤتوبا كون أرهيم مؤجير ما كون قلنا وانا يبتو واتلن منها آه، جال دينا جمن من مغن بولي فيما يتنكون اندكن لن مني جوغيس من هدن جب فمن تبع كتابه <sniffs> ودعي اسم منجب فلا خوف من دير رجع عليهم دين النار ولا هم دينهم يحزنون يجق والذين يقون كفروا بيتنا وكذبوا النار لا بعات ناس من كوتيب ولكن إذا جاءوا ساو النار نيون سفر هم يوم خالدون ويبيلن في السفر لا يجين دفتوا واتشر نياريون قلنا بتو بعضكم لبعض العدون وخاطر قلنا بتو من عجما فيما يأتينكم فقال وان بعض المفسرين يعني في ركة القرآن نال مراد لنا مبيلين بعد أولي تواتشو جنجك جين wati da الهبوط ما يواتي من الجنة تشال جنة إلى السماء الدنيا جم تشال سماء أدنى وبالثاني رن نمو تشات واتم نيارل جن ما من السماء الدنيا ما يواتي جوجي تشال سماء أدنى إلى أرض جم تشوف نهان يواتي جنجك جي ما يواتي تشال جنة نيو تشال سماء أدنى واتم نيارل جنك ما يواتي تشال سماء أدنى نيو تشوف وهذا واحد ضعيف لوترا لقولي غير واحد في الأول تي واحد جنك جنة وقلنا بيتو واتي لن بعدكم نيارل عدو نونا لبعض نيارل ni wala kum ñeen leneen fi aari suuf mu sax waay wa mataan ak xewal yi daa yeneen ba ak jamono kon foofu dafa wane wàcc gu njëkk gi rek ci lañ wàccee suuf waa kon ne dañoo wàcc ci asamaan su njëkk dégg nga <clears throat> bu ñaareel bi mooy ñu jógee ci asamaan njëkk wàcc suuf mel ni ñaari yoon lañ wàcc loolu amut benn yoon rek lañ leen wàcc suuf fadala mu teg laa la anum na ñoom ombitu wàcc nañ leen la àdd jëm ci suuf bi xibaati awali ci wàcc gu njëkk gi wala alam yàlla rek a xam nag li wér dëgg <clears throat> moo saxiw li wér andoona moom kararahu baamu na ko lafzan ci ci baat wa in kaana di nekk na moom wàcc ga waaye dañ di benn wàccit baamu na ko ñaari yoon naata mu aj maa kulli maratin ànd ak yoon wu nekk xukuman ab àtte fanaata mu aj bi awali ci bu njëkk ma daawatum seen noono fi ma baynum ci seen diggante ak bu ñaareel al istiraatu sartal gim sartal alim ci doomu aadama yi an na man tabaane ku topp xudaawu njubam allazi bi nga xam ne dina ko wàcc alim ci ñoom baana dalik gannaaw loolu foofu moom asaayidu mooy ku texe man xaala foo ko wuteeg njub googu foofu moom ashaq yi mooy ku texaadi de wàcc gu njëkk gi daf koo tudd wala na bu ngeen wàccee si kaw suuf nag ñenn ñi noonu la ñuy doon si ñenn ñi wàcc ak ñaareel gi nag mu tudd ko wala na bu ngeen wàccee suuf njub dana leen dikkal ku topp njub googu ko koy ku texe ku ko bàyyi nag mooy ku texaadi waaye benn wàcc la de at yim caaj rek moo bokkut وهذا الأسلوب فصل وخن بي في الكلام تشوخ لو نيان لكو نزاير أي مرم في القرآن لكن تشال القرآن تشرج القرآن يقنا وخي لولو وروى نتلنا الحافظ, الحافظ ابن عساكر عن مجاهد جريش مجاهد قال وانا أمر ديقنا لا يعلم ملكين نيار ملاكين أن يخرجان يجنه آدم آدم وحوا وكوا من جواري تشدكارم manam ci aljana de yàlla digal malaaka yi nag nañ génne aadama xawaa ci aljana ndeysaan fa na sama mu dindi jibril jibril attaaja mbaxanaam buur maa ci ci boppam waxalla mu jëndi mikaayil mikaayil al iklila waaw bandaas ba nga xam ne dañ ko def wurusak moom rafet an jëbi nii ci jëwam bandaas bañ tafoon ci jëw wa muy ay wurus yu mbir yu rafet iblis jibril mikaayil daal di ko dindi jibril si mi mbaxana ma ca bopp ba nag watan laqa mu lonk bi ci adama xusnu ab banqaas ab banqaas daal di lonk ci moom ah adama yaakaar ne musiba ñëw na فظن منجر ادم ادم ان نوني موم قدمو جلا غاوي نانكو بنو قوبتي تي مبوغال يال داف كو بوغو مبوغال مبوغال ليغي رك فا نكاسو راسو بوب سغ نك يقول ما يوانا العفو يالا نغا ما جيغال العفو يالا نغا ما جيغال دوما ادم رويل تي ادم بول مو يالا موك بايلاي ديل وا العفو العفو رك فخالم والله يا سبحانه وتعالى يالا نكو فرارا man ax ah, da ngay daw min nii ci yaa adama yow adama xaala mu ne balli fi nekk xayaan dama rus min ko ci yaa saydi yow sama sang wa xaala wana al awzaa'iyu xan asaan jëlee ci asaan woo ibnu atiya na makasa sax na adama adama fi jannati ci aljana mi amin téeméeri at loolu na ci wa fi riwaayatin beneen nettali sittina aman juróom benn fukki at wa baka jooy naa la jannati aman juróom ñaar fukki wala xatiyati ak ci bakaaram sabina amoon juróom-ñaar fukki wala wala di joona doomam bañ ko reyee hina qutila bañ ko reyee arbaina amoon ñeen fukki de rawaaw nettali na ibnu asakir doomam juñ rey noonu danañ ko danañ nettali soaram ci bunt bi wa qaala wana ibnu abi hatim حدثنا نت لن أبو زرعة حدثنا نت لن عثمان بن أبي شيبة حدثنا نت لن جرير أنا تاو عن سعيد عن xaala mu ne obita wàcc nañ aadama aadama alayhi salaam ila suuf suuf su aadama wàcc nag wutee nañ ci kii had riwaaya bii ne daf na yuqaal dañ wala ñeen ko dax naa dax naa lañ wàcce aadama benn makka diggante makka wa taayif ak taayif kon nettali bi njële ci ibnu abbas daf na dax naa diggante makka ak taayif fa lañ wàcce aadama waañil xasan jële nañ ci xasan mu ne xaala mu ne obita wàcc nañ aadama aadama bi hind ci hind waxawaa waxawaa nag wàcce nañ ko bi juddate ci judda wa iblisu iblisu wàcce nañ ko bi das timaysaan das das timaysaan si lañ wàcce iblis minal basra das timaysaan mu ngi nekk ca basra ala am yaa leen ci ay mil ay mil rek la jege basra <coughs> woo bi tan ñu wàcce alxayatu janje bi asbahan ci asbahan riwaaya bi nettalee ci ibnu abbas def ne adama ñu ngi ko wàccee ci daxnaa xasan nag ne aadama ñu ngi ko wàccee ci hind xawaa ñu wàccee ko ci judda iblis ñu wàccee ko ci dasti maysaan mu ngi jege basra ci ay miil jant ñu wàccee ko ci asbaxande <coughs> rawaaw nettal na ko ibnu abi xaatim ibnu abi lii xasan wax loolu ibnu abi xaatim nettal na ko <coughs> waxaala wana suddi suddi ne nazala wàcc na aadama aadama bil hind ci hind dëppoog lii ibnu abi xaatim nettali ko xasan wax ko wa mu wàcc maama ànd moom بلا حجر أسود تحجر أسود حجر أسود جوجي على الجنة واتش عندك آدم وبي قبضة أكين قبض من ورق الجنة تي قبال الجنة أمن لم قبون تي قبال الجنة واتش ناك موم فبصو مجيكو في الهند تي هند فنبطت قبية دال لسا خجرة تي بي غرب بارفون هناك فوفو موتا مام بارفون نيخ تي كتة بوغ دنگ وان امن عمر جرن انت امن عمر قال من أوبيت واتش آدم وارم بسفا سفا كوك موموس ناك نيوم nee Adam wàcc na Safa wa Hawa Hawa wàcc na bil Marwa ci Marwa rawaaw nettal na ko Ibnu Abi Hatim Ibnu Abi Hatim aydan ba tey kooku Ibnu Abi Hatim nettal na ko dégg kon Adama am na ñu ne dax naa la wàcc am na ñu ne hind la wàcc am na ñu ne dégg nga safa la wàcc xawaa ñu ne la wàcc ñu ne marwa la wàcc jaar ji ne تمي سان تا بصرة فرمات إيه، إيه، إيه، إبليس كون دستمي سان دستمي سان تا بصرة تلوات جيجي بصرة تاي ميل جان جواتي أصبحان لول لي ابنة لنكو وقال وانا عبد الرزاق وقال وانا معمر أخبرني نتل معوف عن قسامة بن زهير أنا أبي موسى الأشعري قال لي إن الآن كيالا هنا أهبط بمبات يا آدم آدم من جنة تعال جنة ila ardi jëm suuf la moo xamal na ko sanaata kulli shay'in métier ak lépp lu nekk ba wàccee suuf métier yëpp la am moom dafa ñëwaat rek métier moo tax yàlla bëggul ko amul métier doomu aadama lu mu gàtt gàtt war naa jàngaa métier ba xam ko rek laa wax de aadama nag métier yëpp la xam wasabadoo mu yóbbal ko min simaari janati ci meññiti aljana su ko defee ne yàlla jox ko ci meññiti aljana mu ñëw ji mu daal di sax moo tax kon ji adama yu noonu doomam yi dañuy jàpp ne hatta bu fekkoon ne sax dafa wax ne aljana jëma génnee dañuy jàpp ne rek aljana jooju mooy tool ya ndax meññite aljana yooyu moom la ji fii rek kon buy nammu meññite aljana jëm jugee mooy ba mu jiwoon rek la mën a doon waaye ba mu jugee moom jugee ne fa ba pare te sax xadis ba moom waxut ba mu jugee wasa wa doo mu yóbbul ko min simaar janati ci meññite aljana mu ji ko fa simaarakum seen meññite xaasi yii min simaal dina ci meññit dina la jógee meññit yi ñu yore di ko lekk meññit dina aljana rek la de xëy na am lu mooy ni yii tata xew day soppeeku caf nga gi di changé watir ko yële laa tata xew du soppeeku rek de allahu akbar meññit dina moo nekk nii waaye nag dafay changé ndax fii mu dikk ak fële du benn waaye fële moom du fa rek laa wax de <coughs> melo yi ñu gis fii rek gaa jomm na ci melo meññit dina yi. waaye teewut benn benn bi rek la de yu mel noonu nag xam-xam yu réy ci biir waxaala al alxakim fi mustadrak yi ci mustadrakam naan baana nett la ne abu bakar bun balowayhi waaw an muhammad bun ahmad bun nadr an muawiyat bun amran zaida an ammar bun abi muawiya al bajali an saïd bun jubair an ibnu abbas qaal nee na maa uskina dëkkuloo wuñ aadama aadama aljana te aljana illa ma bayna salaati asri lu mooy diggante jullit tàkkusaan ilaa xurubi bi ba soog jant ba nee nañ diggante bu gàtt boobu rek ci la Adama dëkk aljana teewul nag jàngoon nañ ci riwaaya bi ci gannaaw <laughs> waaw mu ne dëkk na fa <laughs> dégg nga téeméeri at ñu ne juróom <coughs> xëy na ñi natt ci jamono yi ñu xam mooy suñ jamono ñun ñëri natt ko ci waaw waxtu yi nga xam ne mooy waxtu fa yàlla <coughs> yàlla rek a xam su ma xaal topp moo ne sahihun lu wér ala charte cheikhayni charte ñaari sëriñ yi Buxaari ak Muslim wala mu yoxu jaa waaye génn wuñ ko Hakim wax na ne hadis bii lu wér la mooy diggante takkusaan ak jant bi di so diggante boobu la aadama dëkk aljana daal di génn loolu xam-xam bu renc waaw ndax maqaama boobu mooy diggante takkusaan ba jant bi soo rek mooy maqaama waaw xilaafatu rek laa wax de gannaaw jant bi sooyee nag foofu rek waaw xalifa boobu daal di génn waaw dem ci beneen mission dégg nga rek laa wax de fi sayu muslim nekk na sayu muslim min hadis zuhri hadis araj jële ci araj an abu hurayrata xaala wax na xaala wax na rasulullah in ci àlabi salaa sallam xayr yowmin bis bu gën talaat fenk na fii si moom shams jant bi yowmul jumaati mooy bisu àjjuma fii ci àjjuma xuli xalañ bind aadama aadama wa fii ci àjjuma udu xila lañ ko dugalal janata aljana wa fii ci àdduna àjjuma uxrija lañ ko génne minaa ci aljana rek la wax de aljuma moy bis buy gën ci mbolam bis bu jant fenk ci la yàlla bind adama ci la ko ci dugal aljana ci la ko génne wa fi sax nek na hadith bu wér min wajin aqas ci benen anam wa fi ci taqum lay taxaw saatu bis penc wa khala ahmad ahmad nee na hadasana nett nañu muhammad bin musab hadasana nett nañu al awzaa'i ana bi ammar an abdullahi bin farruux ana bi hurayra an nabi mu jëlee si yonente bi salaa sallam qaala yonentu ne khayru yawmin bis bu gën waaw tanaat fenk na fii moo samsu jant bi yow mu jumaata mooy bisu àjjuma fii ci àjjuma xule xalañ bind aadama aadam wa fii ci àjjuma du lañ ko dugal aljana te aljana wa fii ci àjjuma uxrija lañ ko génne mina ci aljana wa fii ci àjjuma taqumu lay taxaw saatu bis penc moo tax saa yu àjjuma jotee mbooloo mi dajaloo rek fàttalikul keroog bis penc bay mbooloo mi dajaloo de loolu rek la lay fàttali wa isnaadu isnaadu hadis bi ala charti muslim ci muslim la دايما فهم الحديث الذي هو حديث بن يخون رواه نتلنك ابن عساكر من طريق أبي قاسم جريكوس يون أبو قاسم البغوي ما حدثنا نتلنك محمد محمد بن جعفر الوركاني حدثنا نتلنك سعيد بن ميسرة عن أنس قال وأنا قال وأنا رسول الله أنت صلى الله عليه وسلم هبت دارنا آدم آدم وحواء هوا دينغا وريانا ندي نيار ويرفلي جمعن بولم سن علي ما نكنس نيار ورقل جنة قبل الجنة فأصابوا مجرك الأحرب تنغور xataa xaana ba mu waaw toog <laughs> yëpp kii di jooy waaye xolu mu wax laa ñeen ko yaa waa yow xawa xat azaani lor ma alxaru tàngoor wi mu ne fa jaa mu dikk jibril jibril waaw bi xut nañ ci katon wa amara mu digal kon taxsila mu waaw dal di rabbu mu digal xawa mu rabbu wa ma mu xamal ko nañuy rabboo wa amara mu digal adama adama bi xiyaakati ci ñëw wa allama mu xamal ko alien si nan lay nan lay nan lay xaala mu ne wakkaana nekkoon adama adama la muy jaamee sayut ak imraatoo soxnaam fil jannati ci aljana hatta habata ba ni muy daanoo minaa ci jugee ci aljana li xatiyaat yi ngir ñaawteef alati bi nga xam ne asaabatu maa jot na leen ñoom ñaar bi akli maa sababu lekk giñ lekk min si jëlati ci garab gi xaala mu ne wakkaana nekkoon na kul waaye din kenn ku nekk minu maa si ñoom ñaar yanaa mu day nelaw wala xiddatin ci waaw wetam wetu boppam rek yanaa mu day nelaw ahaduma kenn gis ñoom ñaar ci xur wi waaw والآخر keneen ki min naayatu uxraa ci beneen wet gi rek laa wax de keneen ki di nelaw ci beneen wet dégg nga xataa taaw ba mu digal ko jibril jibril faamaru mu digal ko an yaatiyee mu dikki ahloo njabootam xaala mu ne wa allamu mu xamal kayfa yaatiya naka la koy dikkalee falma taa ba mu ko dikkalee jaa maanaam ba mu joteeg moom ba mu seqeeg moom jaaw ci la ko dikkal jibril jibril fa xaala mu ne ko kayfa wajata noo fekkee imraa rek sa soxna si xaala aadama ne ko saaliha baax na lool dégg nga xadis bii la wax nag ne di wane ne Adama Hawa ba ñuy wàcc amuñu woon benn yére buñ sol ñu ngi yore xobe aljana nag tàngoor wi lor Adama ba Adamay jooy naan ko tàngoor waa may lor xam nga ne Adama ni ma ne muñ nettali bii doy na waar ci moom mu ne Jibril andi katon digal waaw Hawa mu rabbu digal Adama mu ñaw mu jàngal leen na kenn ku nekk. jàngal xawaa ni muy rabbee jàngal aadama ni muy ñëwee wuti naag lañ waxoon fure ne aadama xam na mécc yëpp ñu daal di ñëw nag mu ne bu ñuy nelaw kenn ku nekk dafay tëdd ko tem ndax xamuñ nan la ñuy jotee jibril dikk jàngal leen nu ñuy jotee ah xam nga ne loolu doy na waar loolu ndax aadama yàlla xamal na ko lépp lu nekk rek lu ko tax a jug kon nag day amee soxna te xamul lan la ci war a lan la war a sikk moom mu ne jibril ñëw jàngal ko mu jotee moom ba pare jibril ne ko noo gisee soxna si mun nga ah baax na de mun ma firi baat bi sax lu muy firi dëgg-dëgg mu ne fay noonu nag xadis boobu xadis mu xarib xadis bu tumuranke la bu ko jàpp waraf fu ma yëkkati ko ba ci yonent yu mun karun lu ñaaw la jiddan lool yonent waxu ko mu ne waxat yakunu mën naa mu nekk sax min kalaami baadi salafi di bokk ci waxi ñenn ci mag ñi wa Saïd ibnu Maysarata Saïd ibnu Maysarata mi solo xadis bi jëlee ko ci Anas هو moom Abu Imran al-Bakri mooy Abu Imran al-Bakri al-Basri qaala wax na fii ci moom al-Buxaari ne Saïd bun Maysara munkarul xadis kuñ fakk xadis la xadis bu bon rek day wax wa qaala wax na Ibnu Xibbaan ne Saïd bun Maysara yar wi day nettali al-mawduaat xadis yi ñu fent moom mooy fenti xadis rek nettali ko wa qaala wax na Ibnu Adi ne muslimul amri ku lëndëm mbir la moom Saïd bun Maysara kon xadis boobu wérul dégg nga wa qawla waxam fa talaqaa mu daal di jël aadama aadama min rabbi ci borom kalimaatin ay baat fataabu mu daal di tuba lay ci moom innoo nag moom moom attawaabu mooy tuba koon waaw arrahimi maa ji am yërmande xiila wax nañ hiye moom xawlu woo may waxe yàlla ji dunaa rabbana yow suñu borom zalam naa tooñ nañ anfusana suñu bopp walam taxfir naa boo ñu jégul wa tarxam naa nga yërëm ñu ne nakku na danañ nekk mel xaasirin ci way perte de yàlla nee na aadama jël na ci moom ay baat daal di tuub yàlla nangul ko tuub baat yooyu mooy lan baat yi am na ñu ne mooy rabbana zalam naa anfusana walam taxfir naa dana ku ne mel ne xaasiriina <sniffs> sootu Araaf ruwee nettal nañ haza lii an Mujaahid jëlee ko ci Mujaahid wa Saïd bun Jubayr wa Abu Aliya wa Abi Aliya wa Rabia bun Anas wal Hasan wa Qataada wa Muhammad bun Kaab wa Xaalid bun Maadan wa Ataay al Xurasaani wa Abdurahman bun Zeyd bun Aslam ñi ñëpp nettal nañ ne waaw baat yi Adama jëlee ci <laughs> yàlla mooy a zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal xaasiriin ñu ne baat yooyu la <sniffs> وقال وانا ابن ابي حاتم ني حدثنا نتلني علي بن حسين بن اشكاب حدثنا نتلني علي بن عاصم عن سعيد بن ابي عروبه عن قدادة عن حسن عن ابي بن كعب قال وانا المؤمن قال وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانا ادم ادم عليه السلام yàlla na jàmm nekk ci moom ne araayati ndax gis nga yaa rabbi sama borom in tubtu bu ma tuubee war a jaxtu ma dellu dégg nga aay dun aay di ndax danga ma delloo ilal jannati jëm ci aljana su ma tuubee yàlla ndax danga ma delloo aljana bu ko defee xaala naam yàlla na ko waaw fa dalik loolu xawloo mooy wax yàlla jum naan fatalaxaa mu jël aadama aadama min rabbi ci borom kalimaat ay baat fataabu mu daal di nangul tuub alay ci moom maanaam foofu dafa boo ndax su ma tuubee danga ma delloo aljana lool la aadama wax yàlla na ko waaw mu door mu door tuub loolu mooy baat yi mu jël ci وهذا لي غريب انه تمرانك من هذا الوجه تبين انا ما حدش بيقول لا وفي نيك الانسان بين قدام اقدق جوك رود وقال وانا ابن ابي نجيح عن مجاهد جليك وشي مجاهد قال وانا الكلمات باري ادم جليك يا الله الله ما يبري الله لا اله الا بن بور بن ولا جامو الا انت لما يو سبحانك وتدنا ما سبسل وبحمدك اكسسنت ربي دي لامبو سنت ربي يسمو برم اني نك من ظلمت سنا نفسي سمو بوب فغفر لي الله ما جيغل innaka naka yow xeyrul xaafiriin yaa gën ci ñuy jéggale allahuma laa ilaaha benn bur ñu war a jaamu ma yow subhaanaka tudd na ma sab sell wa bihamdika maa ngi sa sant rabbi yow sama borom inni naka man zalamtu tooñ naa nafsi sama bopp faxfir yàlla nga ma jégal innaka naka yow xeyrul raahimiin ma yaa gën ci way yërëm yi de allahuma yow bur yàlla laa ilaaha amul benn bur ñu war a jaamu illa anta lu ma yow subhaanaka tudd na ma sab sell wa bihamdika maa ngi laa mboo sant rabbi yow sama borom inni naka man zalamtu tooñ naa nafsi sama bopp fa tub nangu yàlla nga nangu tuub alayya ci man innaka naka yow ante yow attawaabu mooy yaa nangu waa koonu tuub ñeel sa jaam arahim yaa ji yërëm sa jaam war a waa noonu nee nañ baat yooyu la yàlla la aadama jël ci yàlla mooy allahumma laa ilaaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li innaka xayrul ghaafiriin allahumma laa ilaaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li innaka xayru rahimin laa ilaaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi fatub alayya innaka anta tawaabu rahim nee na baat yooyu la yàlla jëlee ci aadama daal di ci tuub yàlla nangu ko tuub wala waa net na xaakim fi mustadriki ci mustadraka min tariq saïd bun jubayr jëlee ci yoonu saïd bun jubayr an ibn abbas jëlee ci ibn abbas fi qawli ci wax yàlla jim naan fatalaqa mu daal di jël aadama aadama min rabbi ci borom kalimaat nay baat fataawu mu daal di tuubaale ci moom xaala mu ne xaala wana adama adama yaa rabbi yow sama borom alam taxlu nii kanaa bindoo ma alam taxluq nii kanaa bindoo ma bee dikk sa loxo xëy na ñun loo ñeen ko balaa kay mu ne wana faxta nga wal fii ci man min ka sa ruu na ñu wax loo ñeen ko balaa kay waxtas tuma tusooli fa xulta nga wax yarhamuka laa yàlla na yàlla yërëm wa sabaxat mu jiitu sa mer de xëy na ñu wax loo ñeen ko balaa kay wa katabta nga bind alayya ci man ana amal ma jëf hada lii yaa dogal moo war a jëf lii xéeral loo ñu ko xéeral loo ñu wax ko balaa kay xaaral mu ne afaraayet ndax gis nga im tubtu ما ma tuubee rante ndax yow جنا قال nag ma delloo la jënate jëm ci aljana xaaral naa mu ne ko waaw su ma xaaral xaakim xaakim wax ne sa hadis bi saxiwul lu wér saxiwul isnaadi lu wér ak sanad la mooy wér waaye bi lu wér la wala mu yoxta jaa waaye buxaari ak muslim génnewuñ ko loolu it dafay war a ne aljana ja te yàlla delloo war ko lu moy ci dina jooju de loolu moom leer na it warawaa net na xakim xakim aydan ba tey wal bayhaqi ak bayhaqi wam na asakir min tariq abdourahman bun zeydi jere si yoon abdourahman bun zeydi bun aslam abdourahman bun zeydi nak nee ko lott la waaw te moo wéetu xadis bi waaye teewul rek xadis bi di waaw am na yu wane ne lu wér la de xanaa bi mu jere ci bayam an jëddi mu jere ci maam waaw an omar ibn alxataab mu jere ci omar ibn alxataab دين قال وانا قال وانا رسول الله ان صلى الله عليه وسلم لمفترقه بم تقلكو ارم ارم القتيات نياوتي في قال تي واخني وا لم اقترفكن بم فاغو ارم ارم القتيات نياوتي في قال تي يا ربي سوبرم اسالك ما نغني نيان باقي محمد ان حق محمد الا غفرت لما جيغل نغلي نيان ما دي يالا ما نغني نيان حق محمد نغ جيغل ما فقال لا يالا نكو فكيف عرفت نغ خمي محمد محمد ولم اخلقه تبنو مكو بعدو غناغا نغ خمي محمد تبنو مكو fa qaala mu ne yaa rabbi yow sama borom laan naka ndax yow lama xalaqtani ba mu bindee bee digga sa loxo wa nafaxta nga wal fee ci man min ruuxika sa ruuxu rafantu yëkkati naa raasi sama bopp faraayatu ma gis ala qawaamil ala qawaamil ci ponki arshi maanaam ci keno keno arshi gis naa ci keno aras waaw maktuban luñ bind laa ilaaha illallaah mu benn bu ñu war a jaamu lu mooy yàlla muhammadun muhammad yonent yàlla rek laa wax de waaw dégg nga rasulullah yonent yàlla faalimtu ma xam annaka ne yow lam tudif doo laaf ilaa ismaka jëm sa tur ilaa habal xalqi lu mooy mindee bi a sopp ilayka jëm si yow fa qaala laaw yàlla ne ko sadaqta wax nga dëgg yaa adama yow adama inoo naka moom laa habul xalqi bu gën a bu gën a man wa yaa saaltani ma laajee bi xaqi ci àqam faqad xafartu naa la kañeel la Muhammad bu dutoon Muhammad maa xalaxtu ko du la binde قال البيهقي بيهقي إن تفرد بيت النبي حديث بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه ci bi ne anam nii moom mokk na tele woowu daifun Abdurahman bun Zeydi ku lott la wala anam yàlla rek a xam Ibn Kasir moom jébbal na xam-xam ci yàlla ne yàlla rek xam teew nag waaw hadis bi nga xam ne nii mooy hadis bi wane ne Adama dafa tawasul ci yonent bi yonent bi jégal ko Ibnu Taymiya waaw daf ne moom hadis boobu mu ngi bokk ci ñaan ñaan mbindeef rek te nee na mboolem xadis yi wane na si ñaan mbind yi wane na la waaw yuñ fent la kon mu ne xadis bi mm, mm, mm, luñ fent la xamul ci lislam xadis bu ñu mën a layee wala ñuy sukkandiku bi wane ñaan mbindeef ak ñoo gàtt xam-xam lii du benn ñaan mbindeef teew nag ñoom bokk na ci gis-gis ibnu taymiya gi nga xam ne ni waaw ibnu usaymin indi ko mooy lu ñëw ci buxaari muslim wér na te wér na ne waaw yomal dégg nga <laughs> dañuy dem di ñaan Adama pour yàlla dimbali ñu ñu mën a euh, mucc ci sawara soosu daal di dugg aljana ci jàmm ak salaam ñaan yàlla euh, Adama ñaan yàlla pour yàlla may ñu loolu kooku ci Adama lañ jaar tawasul ci moom jaar ci Ibrahima waaw ba ci Isa ba ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla doon ñoo nangul de kon kay waaw xam ji nga wax ne amul ci hadiis bu ñu sukkandikoo buy wane ne tawasul ci mbindeef di ko ñaan pour. jaar si moom di pour mu ñaan yàlla lu xam la maanaam may la mu ne loolu bu dee euh, loolu xamut loolu mu wax tegu ko fenn ak ak tanaqul la wutee gu mat sëkk nag ngay nangoo xadis ñëw ci Buxaari ak Muslim mu andi xadis bu wér boo xam ne kenn nu ci dara bu war na ñun ñëpp danañ tawasul ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ci yeneen yonentu sax te kenn du critique loolu waaw pour yàlla may ñu waaw tey nga bëgg wan ne Adama moom du tawasul ci yonent bi pour yàlla may ko loolu du dëgg loolu loolu laa wax ne teguwul fenn kon yooyu ñoom ñoo koy wax rek waaye yooyu amul dëgg li mën a xew bu mën a xew daal imam Malik moom wane na ne aadama ci yonent yàlla Muhammad sala sallam ci la tawasul ba yàlla jégal ko loolu ñëw na ci asmaawi ak yeneen téere ci téere yu mag yi bu ko defee mu ne Abu janfar al mansour dafa doon xaji Kaaba ga Kaaba ga boo duggee boo jàkkaaro yonent yàlla Muhammad sala alayhi wasallam da ngay wan gannaaw xibla boo jàkkaarloo xibla nag da ngay wan gannaaw yonent bi Abu janfar al mansour laaj Malik imaam Malik radiyallaahu anhu ne ko waaw damay wan gannaaw xibla jàkkaarloo yonent bi wala damay wan damay jàkkaarloo yonent bi wan gannaaw xibla su ko defee Malik ne ko lu tax ngay wan gannaaw yonent yàlla Muhammad sallallaahu alayhi wa te moom mooy sa wasila mooy wasila sa baay Aadama wa lima tusrifu wajhaka anhu wa wasilatuka wa wasilatu abika Adam mooy mooy sa wasila mooy sa wasila baay Aadama loolu la ko wax ak laa wax de kon Malik moom. xam na ne lii moom lu wér la dégg nga waaw ci barkeb yonent bi ci la yàlla jégalee Adama waa ci ay ay yi ka xawli taala ni ko wax yàlla ji ko wajum naan waxaan saa mooy na Adama Adama rek boo boromam faxa waa mu daal di bew su ma tabaaw mu tànn ko rek boo boromam fataa mu nangul tuub ale ci moom wax daa tam jubal ko yàlla tangul na ko tuub jubal na ko loolu mooy suñu maqaama ñun ndax Adama suñu baay la te doom dafa war a baaxe in uridu ila islam astantu عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته